assalaamu alaykum waraxmatullahi taalaa wa barakaatu maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéen dellu si ak yéen ci maam Cheikh Ibra bi daanu yónnee ay àddiya yu bare bare di ko jox boroom daaru ndax sëriñ bi ko dénkoon njaboot ga nekk fa boroom daaru mu ko ci jàppale moom seex ibrahima faal daanu yónnee ay àddiya yu bare bare di ko jox boroom daaru ndax sëriñ bi ko dénkoon njaboot ko nekk fa boroom daaru mu ko ci jàppale ñoo ngi ko doxalee nag ci téere buñ naan mi nan baaxul xadiim sëriñ basiru mbàkke saa boroom dolli ko ay may ak ngërëm wax ko fa jërëjëfe Serigne Touba maam Cheikh Ibra